Ada sesirnya ya kudus murtadian Ani wa angkara di kudus rayala Anta salamun lazi salam bekulli yamin Uyo binafsi bitayin min kayalau Ya mu'minu fi janabi durramah kadarin وهب لي الأمن في دارين يا الله وبالمهيمن لسحب باسترائك ما قد بيعت سرا إلى الجنات يا الله أنت العزيز الذي أبقي بعزتي عزا يخلد لي تكريم يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقاء كل انحداء بالذي لقاك يا الله كفيتني كل ذي جبر بلا كل فين يا متكبر قلب لا يلا يا خالق الخلق لخلق ما أذى أبدا بالبسر والصف والرضوان يا الله يا بارئ الخلق قل لي نفع دون وخذ لي الأجر للجنات يا الله أنت المصور جملة ما لم ترد لي مطلقا بالفضل يا الله أنت الوكيل الذي قد التفيت به في دفع والجلب يا ذا الخلق يا الله أنت الخوي الذي خويتني بالدم في سر والجهر يا ذا الأمر يا الله yii mu mel ak nii mu mel mu mel parce que murid yu bari dañoo umpule mbirum Seex yi dangay doon wax murid sax naan man de wax dëgg yàlla murid laa waaye julli daal ab julli da ko war def loolu du Abdoulaye sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa mi ko ci Abdoulaye bi subhanahu wa taala ci daraje guddi gii di xadr yàlla nga yéwénal mboolem samay mbir ak mbirum mboolem sama xeet يا ربنا بفضلها اكفي كل ما يضرني وللهدى اجعل سلما يا رب سبحانه وتعالى يلا نغما فغال تي دارجي غودي دي دي غودي ليله القدر لب لو خامنا دا نور تيتام يلا نغما ديفال بن سلم موي بن اسكليه بو خامنا دا فاي جيم رك تي اك جوك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين يلا نقول يلا بدل صوفا yokku sa wér barke Seexul xaddi kon si ñàttu laa def si laay jëf si bismillah subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin assalaamu xablal kalaam nuyu mbooloo mi suñu waajur yëpp jël jiw bi rek def ko ci loxol jabi mu jottali ko mbooloo yëpp góor yàlla yeeg suñu ñu ngi leen nuyu baax leen siyaare suñu mbay jégalu baax a baax ci kàddu yi siyaare suñu mbokki jànkat yëpp suñu muur ñëwoon ñëpp rek. comme ni ko waxee rek wax dañoo doogul xaar dañ ci war a jaar bari na kon ñu ñaan yàlla rek ku fi teew rek yàlla fi teew waxtu bi déen yàlla aju aju jullit yëpp barke woon Tuuba nga jege si ndax xam naa du xaj ci waxtu bi sax nag waaye lépp lu fi xaj ñëw rek duñ ñu doy bu baax bi ñëw fi mooy mu sëñ mu sëñ Abdoulaye moom nag day suñu wëllëri jëkk ci waajuramu góor muy sëñ jëkk ci waajuramu ba léegi yàlla na ko suñu borom dolli yërmande bi nuyu tamit suñu jëwriñ ñun ñëpp muy nga xam ne nii moom moo sos daayira bii di daayira Munaawiru Sudóor moom tamit ñooy ñaan yàlla yàggal ko fi loolu te guddal fanam kon su ko defee soxna maam jaara ñag moo war a ñëw waxtaan ci taxawaayu soxna yi ci lislaam loolu na li ko waral mooy dafa baax su ay soxna doon ay tuutànk saa su nekk di nekk ci ab daayira di ca di ca dem di ca guddee yenn saay ñu xam dëgg-dëgg ban njariñ la daayira boobu jeexital jeexital bi daayira bi am ci ñoom moo tax lii ñu koy def mu doon ab exposition rek pour wane ni gone yi nga xam ne ni ñoo ñëw ci daayira bi képp ku nga xamante ni bëgg ngaa jàng li soxna maam jaara mii di def sëñ Abdou Lahad Dieng mii nga xam ne moo leen ko jàngal mën na la koo def ba nga xamante ni lépp sa wàllu diine rek di nga xam moom mii ni ko mënee noonu la ko ay moroomam yi nga xam ne tamit ñoo nekk ci daayira bi mënee ndax ñoom lépp lañ ko jàngal te daanaka biñ waxtaan bi sax sëñ bi dafa def sélection